bii nga xam ne tey moom moo fekk ne si bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu tudd yonent bi ñoo fekk Mouhamed muy Mouhamed yooyu yëpp nekk nuur na ala nuur ñu ñaan yàlla jéeg yi nga jéeg am na nekk yëkkatiku maqaama ñeer la ñun amuñ dara lu dul yonent bi loolu la ñuy bàyyi nàmpatal alhamdulilah bi jikko yooyu lañ gis ci yow wax naa la ne duñ tëb rek am na ku nekk waaye dañoo natt ci yow jikko yu bëri bëri ci ko jikko domaine jikko qualité yu baax duñ ko gisee ci yow tamit saa yu ne rek mu ñuy sawar la te saa yu ne suñ ñuy wanee ci ay vidéo sax suñ ñëwee suñ kër liñ ñuy encouragé mu ngi suñuy mbokk ak suñuy xarit ki nga jàpp mat naa jàpp am na la moom ndax doomi daara la te ñun alhamdulilahi rabbil alamin doomi daara lañ gën a ñemee beneen doomi nasara kon Mouhamad Ndiaye ñu ngi lay wax tànk yi nga ñëwee du dara lu dul nemmeeku say mbokk ak kóllëre bi nga xam ne moom la ñu yàlla takkee nga gën a suuxat loolu te loolu bokk na ci jikkoy jullit bu mag wax naa ko rek ne politique ci senegal dañ koo jox baat image mooy image bu ñaaw a ñaaw waaye image bu ñaaw boobu yow yaa ngi koy soppi yaa ngi koy soppi ci sa jikko yaa ngi koy soppi ci doxalin yi ngay doxali jaam yàlla yi ba tax ne sëriñ si nga xam ne nekkuñu woon ci langue gi sax pour dugg ci politique ñi ngi ciy dugg ngir sa jëm ndax mbooleen njaboot ak Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñi ci ëpp ñi nga am na ngeen te du alal du dara lu dul sa jikko ak sa tedd nga ak sa baax ñi nga xam ne foruñoo ak yow sax ñi ngi wax jikko yi kawe ci yow président Macky Sall nag moom li imaam wax rek ñu la ab làmmiñ imaam dégg nañ ñi koy wax xaw ma wér mu ne ñaari piis bu ñu amee piis boo xam ne dañ la ko jox muy piis boo xam ne dañ la ko may rek muy ak piis boo xam ne dañ koo ñëw daane na ko ba mu mat ñi may la ko ñu ci tegee ñaar yooyu booy tànn Macky Sall nag moom mooy piis bi ñëw ñun sol rek lañu wax opposition bi nag mooy piis boo xam ne ñëwuñ ko da nga fay ñëw da nga rey ci téere yooyu yëpp dana ci la ci fekk kon ñun alhamdulilah ay sëriñ lañ waaye dañoo gis lu tax ñuy jàpp président Macky Sall boo wëree réew mi rek ci yim fi def ci diita lim fi toog rek da nga ànd ak moom ànd naag sama mbokk mii Kébé zikarkat la ñu dem Gambie jugee fa ñëwaat dem biir Casamance def fa ay programme gis yoon yi ak li nga xam ne moom la am yéene pour def ko te doomu aadama du dara lu dul te yéene yooyu mu ñu wax yépp ñun ñu ci seet teg suñu bët man daal sama waxi démb mooy sama waxi tey ku ma xam xam ne du may waxantu wala may wax loo xam ne waxin bu sori su fekkee ne man ngeen déglu samay kàddu ndigal la tataali bi ndigal rek moo ko war bu sëriñ bi joxee mooy ne kii ñun moom lañ àndat ak koo mën di àndal nag ñu yow lañ àndat astaam mii sama doomi baay dafa am wax ju muy wax te wax ji foor lool mu ne rahma man moom laa am àndat ku mën di àndat boo am na benn ziwaara sax pour laay àndat ngir lan kóllëre wan ak dignité lii nag alhamdulilahi rabbil alamin yàgg ngeen fee nekk di oo ay politiciens yi fi ñëw waaye nit ku ñëw ci dëkk ne naa la defal nangam balaa mu fi jógee mu ne may naa leen nangam kon yéen lii ngor ci yéen bàyyi daan wax ne laa ujaazil ihsaana bin nisyaan yi lu baax man Cheikh Ibrahim du ko faye fat yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ne man uli minkum ma'rufan falyukafihu fa in lam yaqdir falyukafi yukaafi bi duaa Cheikh Ibrahim wax ci Mauritanie insha allahu bi duaa laa aqbal mun ne yonent bi nee na képp koo lafal na lu baax boko mané fay nga fay ko boko man ta fay nga ñaanal ko yàlla ñun buñu am ci ñaan yàlla rek waaye nañ daa suñuy paaka pour yóbbu Macky sàll premier tour ku mu neex da dem ku mu neexut dana toogaat ndax xalifa yi généraux yëpp ak kilifa diine yëpp ñoo ànd ak moom jox ko kàddu réew mi ngir yaram ngir kóllëreem ñi ngi xajamal nag ay mbiram waaye ñooñu bàyyi daan wax mu ne weer wi ne dàng te bu sayri di mellal yonent bi comme weer weer woowu ab silmaxa bu taxawee ne man gisuma weer yi bàyyi mu ne moom moo am problème yu bët waaye weeri moom mu ne bàng kon kooku tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla dimbale ba lépp loo xam ne yaakaar na ko ci ñu ñun de Saalum li ñuy wax mooy lépp lu Macky Sall yaakaar ci Saalum yal na ko jotee ci sa loxo ñun loolu la ñuy ñaan yàlla ñu ngi koy dénk moom tamit mu bàyyi la xel te ñu ngi ci ay jéego yoo xam ne yëgoo ko waaye ñu ngi jéego pour gis ko xamal ko yow yaay kan ci Saalum wax ji bëri na du ay auto ñu mëna yëngal du ay xaaliss ñu mëna yëngal dignité ak ngor ak sam sa kàddu moo ñu yëngal te loolu gis nañ ñu nak ñu ànd ak yow 100% bu taxaw di wax ne sëriñ du politique sëriñ du politique du dem waxna ay yoon ne islam daf fee nekkoon Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu muy suñu mam taxawol la na fi ay parti khalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane la jëloon ak sëñ Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum ak kenn ci kër Cheikh Ahmed Bamba ne leen seen jamono jamono la joo xam ne jamonoy politique la yebal na ay doomam ñu jàng dem Qaahira bind leen leetar wax ca solo leetar ba ne sàkku naa leen booba yeneen ca xay bu nekk ay wali yàlla mm-hmm. nazirul ummahatil bachar aminul waxyi mamun wal makki wal hasan seen jamono nag du dara lu dul jamonoy diplôme la jamonoy licence la dama bëgg ëllëg ngeen ñëw nekk ay dakatira nekk ay ingénieur nekk ñoo xam ne dañuy dugg ci biir réew yi di suuxat réew mi ndax Cheikh Ibrahima Niass bi ñuy ñëw ci yoon bi dégg nañ ko muy wax ne Saalum man maa fi njëkk a bay bay ceeb mhm. te loolu lépp lu ngeen may gis ma liggéey liggéey ko yàgg naa wax ne nit du xeexe ki nga xam ne moom la yàlla dénk pouvoir mhm. Macky Sall la yàlla dénk pouvoir bi ñu dénkee pouvoir ci nit wanut Sine Saalum gannaaw wanut Kaolack gannaaw wanut Medina Baye gannaaw kon taalibe Baye lii ngor ci ñoom mooy buñ ko won gannaaw nañ ko wateel fal ko premier tour incha allahu fii biñ koy ta sanc imam Cheikh Tidiane moo waroon a ñëw waaye dafa uutal rakkam ma wax leen ne leen Sayda Fatimatu Zahra doomi Cheikh Ibrahim la te mooy taawam dëkk bii tàndal la tudd waaye dama bëgg ngeen yokk ci Sayda Fatimatu Zahra turam ngeen yokk ko ci dawaluñ at ab jaamu yàlla jugee ca Mauritanie ñëw tabaxal leen jumaa te jumaa jaa ngi nii te lañ leen waxoon ba léegi incha allah bi himmat Cheikh Ibrahim lépp dana ñëw ndax loolu rafet nañ ci njort ci yàlla rafet na njort ci jaam yi nga xam na ñoom lañ àndal kon président ñi bañ laa téye ndax jotaay yi nga jugee sori na man joxoon naa la ngànt sax waaye lii yëpp ànd nag ànd gu rafet la ak kóllëre gi nga xam ne moom nga deelante ñun ñun nag doo ñu gën a gore mukk képp ku ñu lebal lu baax rek danañ fexe lépp luñ mën pour fay la ko ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla bu la dara fakkatal foo bëgg a egg Thank you.